yow Samb baa ngay ñibbi macha allah ndeysaan. taawal photo photo photo. waaye ngay dem de borom Samb sambil yaa ñu sagal de le fils de sambil. macha allah. bilaay yaa ñu sagal waaye yaa sagal waa Samb. sagal nga waa Samb yëpp doomu Samb maa ngi noonu daal ziar si woon waa Samb waa dëkkam. man la. waaye sagal de yaa sagal waa Samb dawu sampai baa ngay ñibbi macha allah ndeysaan taawal photo photo photo waaye ngay dem de borom sambe waaye yaa ñu sagal de le fils de sambe macha allah boya bila yaa ñu sagal waaye yaa sagal waa sambe sagal nga waa sambe yëpp doomu sambe maa ngi noonu daa ziyaasi sambe waa dëkkam man la mama, mama. sans production moo woote ndeysaan Balla ñoom ñaar ñi ngi lewtoo le premier janvier 2022 wala 2023 ci arène nationale Gaston production moo fi woo Boy Niang à Balla Gaye 2 à gauche lamb ji doon xaar ay at di ko xaar ay weer arbitre sifflé na ko ndeysaan ndeysaan Balla Gaye à gauche Boy Niang droite ñu ngi lewtoo ñoom ñaar balagay Gaye na lewtoo bi balagay Gaye na lewtoo bi ndeysaan da ngay yuuxu lu ñu yuuxu Kaka waxoon naa la xaar waaye Balla xaar na ko Balla xaar na Boy Niang Balla ngi xaar Boy Niang xaar na ko ci une minute trente secondes waaye loolu ko i minute jeexalu ko Balla ngi lewtoo Balla Boy Niang Balla mem na mais demul bala tibb na suuf raxas eh jël na ko bala Boy Niang bala ngay Boy Niang na ko Boy Niang na ko jël na ko lu fay xew bala Boy lu fay xew lu fay xew war na ko nombo Boy Niang Boy Niang daan na Balla Gaye Boy Niang daan na Balla Gaye Boy Niang daan Boy Niang daan na Balla Gaye 2 oh ngi noonu lamba ngi noonu lamba ngi noonu lamba daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy xamaguñ ci dara ceer nañu xool ba xam dinañ gis Omar Sakho di Balla Gaye gis ko guy gi mi ngi ci digg géew bi ceer ceer guy gi mi ngi ci diggu géew bi mbaru géejawaay yëpp a ci diggu géew bi Sa guy gi ceer mbaru géejawaay yëpp a ci diggu géew yëkkati ko yëkkati nañ Balla gayde de ndeysaan nañ ko mi ngi ànd ay mbokkam ndeysaan xoolal ma ndeysaan Thier Balla Gaye 2 mi ngi dem. fu mu jëm waaw Balla Gaye Boy Niang ban analyse nga li ci xew jaaxal nañu bëri xam nga ñu bëri jàppoon nañ ne su bu jàppante amee favori ba ba Balla Gaye la waaye yàlla dogal na bi bi ñu bi ñu dóorante Balla am na li bëggoon mooy jàppante bi. mieux sax mu mu am loo xam ne kenn yaakaaru ko woon mooy jàpp tànk waaye jàpp tànkam war a def mëninam ko ko xam Balla xam ko ak mën na bëre waaye mënu la mënu la mënu la mënu la manipuler ba Boy Niang ba Boy Niang mën mën ci génn boo daan daan ko mu jaaxaan waaw loolu vraiment do do bett nañu bëri daal bett nañu bëri bett nañu bëri gis nañ Balla Gaye dañ ko daan gis ci bëre tey Boy Niang tël tànk bi ñu gis ni Balla Gaye jël na tànk Boy Niang ba tey li mu war a def ñu bëri dañ doon wax bu ñu jàppantee avantage moom lañ ko joxoon mais euh, tey lan pour yow ban erreur la Balla Gaye def tànk bi ni mu ko jëlee baaxul wala. waaye boo moom li ma gis booy boo ñaar dafa gën a pare Balla tey ko boo ku gis booy ñaar tey li muy duggusee li muy tuus li muy daw ba si biir géew bi nga xam ne booy ñaar dafa pare doo ba pare boo ñaar indi na état boo xam ne gëj na koo indi Fatma ba pare xam nga mbër soo ko ñemee soo ko ñemee rek mën nga am ci waaye boo ko ñemewul te boo ñaar tey dafa ñëw ñeme ñeme ñeme Balla dama dama jàpp ne dafa am lu luñ ko déy. Euh, loolu tax mu ñeme waaye ñe ñeme na Balla Balla ñëw na indi na la lam naa indi waaye daal am na daal am na lu des lu des. waaw waxoon na ko ne ko nekk roi daan Balla Gaye 2 moo ma dàqal nekk roi des arènes Boy Niang kon donc li mu doon ba bëbët ñëw na Balla Gaye roi de arènes la daan. bomba Modou Lo nekk roi des arènes kon instant bi coïncidence bi. moo Boy Niang fu mu jëm. Boy Niang dafa soobee sa po Fatma xam nga neew nañ la. su Boy Niang mënta daan Lac 2 mënta daan Tapha Tine mënta daan Balla Gaye 2 su boobaa dafay obligé rétrogradé tey nag dafa sauvé sa peau mooy tey dafa ne maa ngi fi ndaxte kan mooy Balla Gaye euh, ak li def ci daan daan la na kenn kenn la na na na VIP bi mu nekk loolu dafa am koo xam ne da ko yóbbu foofu kanam sax. Euh, euh, kii kii Boy état bi indi. macha allah wax nga ko wàññi poids entraîné ba os. bala est-ce euh, li ko doon wax dama la xam bu baax. waaw sa xamul bu baax bi tamit dafa dem. gars yi dañoo yaakaaroon bataille psychologique la. gis nañu Balla Gaye taxaw na xaar Boy Niang presque ay une minute yooyu noonu Boy Niang ne ko damay def est-ce que psychologique bi. est-ce que xawuta nax Balla Gaye. waaw mais loolu am na xam nga loolu tamit Balla gay loolu ku ne xam ne ne communication bi si fin bi Balla Gaye Boy Niang dafa changé communication carrément. xamal ko ne ko combat bi aw ma loolu lu ma ciy gaawantu ab doxatuma lay une minute dañuy bëre vingt minutes loolu tamit ci ci wàllu bataille psychologique la gis nga Balla xaw na xaar waaye ku ne xam na ne Balla bu xaaree Balla mënut a xaar Balla dafay dem loolu la def def ko xaar tuuti dóorante dóor yi kiiwul mu dem waaye nag bi mu demee jàppante bi gaa yi foog ne bu ñu jàppantee dañuy waaye la la nekkoon ci Balla dafa am dafa nekkatul. wàllu laa jàpp am na daal lu fa nekkoon du xaw a deñ il faut mu gën a xool boppam waaw ndaanaan la vraiment waaw. ñu bari bañ defee analyse dañ ne lii ba lii Tapha Tine luy Lac de Guiers du bàyyi du bàyyi ballagay loolu dégg nga affaire boobu ñu bari ne Balla Gaye moom moo gën a nekk mbër mi tey lii nii analyse bi nii que ba muy muy Lac de ak Tapha Tine gis nañu mënul ci ñoom dara léegi mu daan ki nga xam Gaye daan bu waaw waaw parce que xam nga mooy li nga doon xam nga ne dañ ne woon ku mënul si dara Lac 2 mënoo mënoo dara ci Tapha Tine mënoo mënoo mën dara ci ci Balla waaye nag làmb boo gis jour boo gis ak ay réalité ma tey ne naa la booy ñaa bi ñëw xaw na wuuteeg Boy ñaa yi doon ñëw Balla tam bi ñu gis. boo xaw na wuteeg ba balla bi bi bi bi ndaa gis moo tax ma bëgg la boo boo boo ci doolee consigne yi bëree teg ko ci yoon vraiment daal euh, li li waroon xew rek moo xew. jërëjëf kontaan